li ñu njëkk wax mooy barabu Serigne Touba duñu ko ubbil sax góor gudul nituk diine ku ñu xam ku ñu xam nit ku mag bu ñu xam loo def ci lislaam waxuma laa nag jigéen waxuma laa nag jigéen doo xam ne yorootul jullit xaw ma ndax jullit la xaw ma du jullit kon loolu tooñ mënu ko passé euh, trafic d'influence la abus la manipulation la parce que ban intérêt nga am ñëw ba ci jumaay sëñ Tuubaa naan dañu ko ubbil te ubbil ñu ko parce que amoo benn valeur religieuse amoo benn valeur morale bu tax nga naan dañ ma ubbil jumaay sëñ Tuubaa lan nga ci jublu nga tooñ toute une communauté tooñ lu toll ni mouridisme tooñ l'islam parce que jumaa bërëbu Yàlla la dalikum wa man yu'azzim sha'a'ira llahi fa innaha min taqwal qulub nga ñëw agressé loolu lépp di temps fou de tout cela te dañ doon aay sax ko kuy taxaw di jël ay image ak di filmer ci biir jumaa ji nga ñëw def ko ba noppi dañ ma ubbi par rapport Sëñ Tuubaa ànd ak sa complice bu lay fenal naan dañ la woo nga ñëw ci biir bi lan lan lay woowee yow yaay kan ngay jigéen nga xëtt mboolem charte l'islam ci loolu ak mboolem charte worma yi nga xam ne si si wormaal nañ ko Serigne Touba wormaal ko jumaay Serigne Touba ji. parce que non seulement Serigne Touba kese kese mais jumaa la bërëbu jaamukaay yàlla bu toll ne jumaay Touba yaakaar naa ne loolu jëf ju ñaaw la importance bi du nit ki parce que diw la soxlawuma ko li bëgg a wax rek mooy jëf gi du dëgg parce que balaa ëllëg dëkkandoo yi la ñu bokkalul diini wala ñu bokkal pas-pas kenn xam ne loolu jaaduwut loolu def ñoom jiixi jaaxal seytaane loolu lay dox ci jiixi jaaxal lay dox seytaane ci lëndëmal xel lay dox seytaane ci manipulation lay dox. kon kii seytaane piir la seytaan rajim la loolu mu wax du dëgg day fen ba ci toppaatit mooy usurpation la ba ci toppaatit mooy trafic d'influence la ba ci mooy tooñ la te yaakaar naa ne yooyu yëpp euh, euh, kilifteef gi yor jumaa ji dina ci def ndigal la ca war elle est elle est elle mu ñëwaat ci wet li mu doon wax xam ne li mu wax du dëgg loolu mooy li ma ci njëkk a wax bàyyi nag ñoom liggéey boobu ñu ngi ciy revenir def naa dinañ leen dégg ñoom tam te dinañ def liggéey bi la ci war ndax sëñ Tuubaa ni mu toll ak ni jumaay Tuubaa toll du rek bërëb boo xam ne jigéen du jóge fële rek di seytaane rek ñëw taxaw ne man dañ maa def lii dañ maa def lii te du dëgg ngir indi ay jiix jaaxa ci xolu ñu gëm ak ñi ñu bokkal diine ak ak ñi nga xam ne si ay mbokki taalibe bi te nekkuñu fi te xamuñu na loolu du dëkk